حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالزماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالزماوات أبكي عليهم وأجل جلد دمنا مرد صادق دمنا ku bëgg ay mbokkam dem na. sant yàlla rek quoi sant yàlla sant yàlla parce que loolu ak àddina ñoo ànd. mu nekk rek taalibe sëñ Tuubaa rek la soxla ginnaaw yàlla yonent bi. السهور معا مثل العزيب والدن والغدوات كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال mooy nit ku bëggoon boppam la nit ku amoon ak taalibe la nit ku amoonu fit la. xam ne kii ku bëggoon Sëñ Tuubaa rek la te bëgguma looy Sëñ sëñ bi rek laa la moom moom laa bëgg moom lay moom lay moom lay xencu sama àdduna lépp sëñ Tuubaa beneen bi ci topp sëñ Ablaat ñaari xasida laa gis mu bind ko bu njëkk gi ci sëñ Tuubaa la jëm bi muy jaayanteeg sëñ Tuubaa sëñ Ablaat bindaatu ci keneen waaye njuga ke ba alaaji sëñ Abdou Lahad yor na xalimaam bind ci moom def ci ay bëy yu mucc ayib fa xaysuma barasat layla bi baajatiha anha tawallaw ila almawla bi taati yansawna layla wa sooda fi xiyaamihim ndax treize dina ma doy ngir fesal dund gu fees dell gu barkeel juróom-ñaar fukki at mu xuus ci àdduna lislaam jamu ko mbokk xarabu ko réew mi jéppiwu ko fukki simili ak ñett néew na lool ci nataal jëm joo xam ni amul senn saa mbaa simili soo xam ni màngul aw yiw mbaa xéewal ci jëf ju rëy te matale benn simili bu ci nekk wecc na junniy bakkan ci jamono joo xam ni réew mi metti lool ñépp soxla ndimbal sëtub Anaxam Kebe ni sëng doon jëmmi bayit wi Sëriñ Tuubaa doon wax ni féetale ma njirim yi ak néew gi doole ji ma doon seen delluwaay ak seen wéeruwaay suñ mbokk mu baax ma nga xam ne nekk na di dundul Sénégal di teraange Sénégal ndamal Sénégal di ndimbalal mbër yépp alxaaji Babacar Kebe Njuga mbokkum réew mi ñaari néeg yi ñoo ko séq néegub geet ak néegub tee jeek nii nag la juddoo ci néegub geet waraxa mbooj ak ay mbooj a bokk ndey ak baay aysa mbooj moo jur aram joor ay mbooj ñu may ko sëriñ kebe ana xam binta ja mu jur assa binta ak tend kebe Assa Binta moo ñu jox ko Ibra soxna ngir maam ci Mbaalo Assa Binta ak Serigne Assa Binta ak Mbaye Assa Binta ak Fati Assa Binta noonu la Njugo Kebe juddoo ci néegub geer ni mu juddoo ci néegub teejeek soxna Anta Samba ko jur sama bàjje boo demee kër sëñ Basiru fekk muy mbokkam di taalib sëñ Basiru boo demee Daarul Moxti fekk sëñ mu daaw Balla di mbokkam soxna moom yi di mbokkam yaroo fa moom mbokk nekk fa moom nga ñëw Daaru Khoudoss kër sëñ Modou Moustapha ñëw kër Cheikh Mamadou Fadal dugg kër Cheikh Abdoul Ahad dem kër Serigne Souaïbou kon loolu day mel ne kër yëpp dañuy daal di bokk yam ci moom. ndax maam yi ko meññ euh, dañu nekkoon ñoo xam ne ñu suñu borom mayoon lañu dund na téeméeri at te fanweeri bëñ yaag ñaar yóbbaale na ko benn manqué wu ca mu bu ma génnee àdduna fa ñu ma denc na ngeen fa toog. teraanga dana leen fa fekk. dañuy wax ne bi mu nekkee ci euh, mujj jamonoom bu ko àll bi dikkalee day toog naan man de lenn rek mooy xaw nekk ñaga ñaga sama xol mooy leer gi may seen bawol te du ma fekk te ma fekkoon kenn mu fa jiitu loolu moo dogal na bi mu fi jógee moom euh, doomam bu jigéen soxna Assa Binta Kébé ak moo ju mbaalo Kébé mu jur Njóor Kébé euh, ànd ak borom këram Ibra Soxna Giri ñu dem fekk ku tedd ki njaareem xam nga nekk moom foofu ci la bi sëñ tubaab di yebal sëñ Basiru euh, ci Saalum ci la ko booleeg Mam moom mu jógee Jurbel ànd ak moom dem toog euh, Kaolack loolu moo waral la branche kaolackoise de la famille. càllala gu sell judd gu rafet mbokkum ñu baax ñépp mu jaay mbokk gi jëndee ko ak taalibe ngir xemmem tuubaali abdin muridin saadiqin waaye nag murid saadiq léppam gannaaw yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi wa ak baayam ak ndeyam léppam xaadimu rasul bëgg bëgg sëñ Tuubaa feeñ na ba ci Tuubaa xebla yi bu ne dafaa def kër lu mas a am andi ko Tuubaa nit la koo xam ne dooleem yépp Touba la ko indi. gis nga lii ñuy wax Touba ci kanam njugaa ko kere njugaa ko njëkk xalaat ci àdduna lii Touba ci kanam yéenay njuga kebe la ndax am alal investir ko ci yoonu mu murit moom rek moo doon nekkoon yittee alaaji njuga. benn nit boo xam ne daf ko tooñ bañu dem ci yoon kooka daw seeti Abdou Diouf ñu ko dimbale ma. waxal ma ju euh, Alaaji Njuga mu baal ma. ni képp ko waa ameel bor képp ko ma tooñ boo ma nekk bëgg Sëriñ Tuubaa rek baal naa la. damaa bokkoon pas-pas ci Sëriñ Tuubaa mooy pas-pas bi mooy bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg dëkk Sëriñ Tuubaa bi ndax dañoo wóor ne li ñu woote tey jii muy Tuubaa ci kanam euh, xëy na da ko tuddee da tur yi waaye jëf-jëfan ko ci ndax jëmi Tuubaa ci kanam def euh, mooy taxawu dëkk bi ci. ñeenti gox yëpp mu def ay barab barab yu ràññiku yoo xamante ni euh, nit ñi dañu xam ne kii ku bëgg dëkk suñu tubaab bi jëm ci kanam la waaye Ndiouga Kébé alaaji sëñ Abdou Lahad yor na xalimaam bind ci moom def ci ay bayit yu mucc ayib lututa xaqan bihi wa anta muridun saadiqun lil xadiimi nuuril bilaadi innahu saadiqul iraadati xaqan muxsinun saamitun bi xayri inaadi wax naa ko si mi mi ngi sol benn bay bayfaal bu ñuul bay bayfaal bu ñuul fotom am na ci Pauline mbaxana moomee ba mu koy sol suñ suñu laat lañ fekk waaw ah, Touba ñu waxtaan bu waxtaan nag du long ma dem dama daan naa ko fekkee ndax ci am na kenn du ko nettali muy dem di dem ba jógee ni ko damaa bëggoon daal ñaan la leen mu ne ko lan nga may ma may sa bay fall may sam Seex Ibra ndax sëñ Touba amoon na Seex Ibra Fall yow sëñ Abdou Lahad yaay sëñ Touba man maay sam Seex Ibra Fall sëñ Abdou Lahad daf ko ne njuga mu naa mu ko sa yéene bu ko sëñ Touba a bu ëllëgee jullit yëpp xaj nañ ci sa yéene bu la ko sëñ Tuubaa fayee jullit yëpp xaj nañ naw askan mbaate tarixa nit moo ko ñor jullit moo ko ñor réew mee ko ñor bëgg sam réew ci gëm yàlla la bokk njuga patriote njuga nitu yàlla njuga homme d'affaires njuga pionnier njugo entrepreneur taxawal ay société dimbali ay boroomi kër tabax ay jàkka defari lopitaal bënn forage tabaxi tali jàppale état gunge askan wi. ñëpp la daan liggéeyal ñëpp la daan def jox alalam tamit kon kooku yaakaar naa ni boo dajee ak sëñ Tuubaa ruus ndax njabootu sëñ Tuubaa gi ku ne teg na la fa mu la war a teg. lim daan dugal ci këri diine yi lim daan dugal ci këri diine yi amul benn jullit bu ko mas dugal ci sam réew def ko ci këri diine yooyu amul. diirub li muy dund at mu ne dana fi indi 1000 tonnes ci dugub junniy bëri koy dugub dana ko fi kar na bi nga xam ne moom lañ doon séddalee juróom-ñaar fukki dëkk ñoo ci nekk yi nu wër ku ñëw ñu jox la la cee sa wàll. Alaaji Njuga ñaata la génne ci alalam jox ko ab jullit te xamu ko bëgg koo xamit waxuma la da ca sàkku waaw góor waaye bëggu xam kam ko jox ndax day jënd. lu mat nangami ton ci ceeb wala nangami ton ci pep wala mu jënd ay yëre yu jeex jox ko kenn na ko séddale leen ko waa réew mi du ko ne yóbbul ko dëkk sàngam seddale ko waa réew mi. mille ko jox sëriñ si liste baa ngi nii am na liste bu ma bu ma. mi nii waxtaane nag tey sur le plan économique bu ko yàlla joxee wërsëg. kër ndey mii mu ko. kër baay mimu ko lu mu def boole ñëpp def société bu mag les frères Kébé. bi mu fi jógee soo xoolee société yu gën a bëri euh, daanaka boo nee boole ñoom ñëpp ils étaient à euh, euh, les héritiers avaient une créance de deux milliards trois cent millions sur les sociétés ci ay comptes courants yu ko bàyyi woon rek pour soxal société yi. way mu tabax ba mu paree ci turam. ak alalam transféré ko SAMQ bi benn société bi gën a bu gën société mi wala donc euh, société am difficulté moom mu ñëw rallonger donc li ñu soxla woon comme trésorerie am nga comme Sores bi nekkoon à l'aéroport comme la blancheur du signe ak yeneen. jullit dem na murid saadix dem na ku bëgg ay mbokkam dem na. ku fi nekk ba jóge fi mësul wax dara lu xam ni daanu ko dégg ci rajo wala ci télévision wala nga gis ci journal ñi la ñu nga wax tey wala ñu la mu def tey akañ ah, loo koy dégg ay la nga def tey ci lu baax xibaar mënula gën a tiis dëddug alxaaji njuga dem mënula gën a diis ci askan wi faatuk bay njuga juma jàkkee si njaa fi la jullee fajar ña mu julloon ñoo ko wax encore wax ci lañ jullee fajar bala jullee fajar ma nga ne faatu fajaruk talaata mars lanu yewoo xibaar bu kenn dootul fàtte. du ñu ko fàtte jamais jamais jamais jamais kadaa dimbale kadaa faj aajo yi kadaa taawu kër yi kadaa suuxat diine dem na waaw bu jullit xàqan demee. murit saadix dem anakan mooy dee ci taxawu néew ji doole yi di bàyyi xel ginnaawam Baay Njuga dem na fekki sangam ba Sëriñ Tuubaa Xaadima Rasuul keroog dencam ba doy na waar Cheikh Abdul Qadir moom Sëriñ tuuba ilimaani ilimaan yi moo ko taxawu seere ci moom seere yu rëy bàyyi laat feddali ko naa ko njuga raw na fanweeri at ak juróom benn ba mu làqoo suñuy gët ba léegi muy wéy di des ci suñuy xel ngir robuñu ko ci bàmmeel ci sunu biir xol lañu la denc yàlla na la yàlla fay. yàlla yàlla doole ay yërëm ak leeram ci barsàq suy suñu Tuubaa ak Seex seen amoon salaatu salaam